donc dafa am benn histoire boo xamante ne dafa particulier man ak ñoom et puis sama choix si jigéen ñi dafa nekk loo xamante ne pour man euh, lu yàgg la comme que je te disais que euh, man ak ñoom du tey et je pense que ku xam baxaw xam nga chaque 8 mars wala chaque 25 décembre moom moo ko lay détenu nekk Liberté 6 euh, mu nekk loo xamante ne ne dañ ko yàgg def depuis des années parce que dañuy jàpp ne ne que jigéen lañu dañuy jàpp ne ne tey caabi fecce na leen ginnaaw erreur moo leen fi dugal et c'est normal tay lu may 8 mars mooy journée mondiale de la femme nga partager ko ak euh def ben fête bo xamante né même boudé ben 1 une heure de temps la sax dinañ décompressé ou un tout petit peu wo ci sa mbokk artistes yépp franchement ñëpp ñëpp ñëpp wuyu ma mu nekk lu muy rafetlu mu nekk lu muy rafetlu. à chaque fois gis nañ Baxaaw Baxaaw sax mun nañ ne Baxaaw léegi foo ko tuddee da ngay tudd social pourquoi baxaw à chaque fois ya nga ko sànq 31 décembre wala 25 décembre 8 mars à chaque fois baxaw day jéem a di unir nit ñi. lan moo leen di baxaw social. parce que man je pense que social dafa bokk ci li doomu aadama parce que doomu aadama déjà le fait que nga judd rek loolu social la déjà pour man def lu baax dafa amul amul amul limite. amul limite et du prison yi kese pour mën def lu baax amul limite fépp fu waay war a mu nekk war nga mën a def li nga xamante ne social la donc du loo xamante ne ne soit si hôpitaux yi la wala si wala si prison yi la déedéet ñun yàlla moo ñu bindee noonu e je pense que ne tey ni ñu yàlla bindee nii doon na loo xamante ne noonu la bindee bépp doomu aadama nit ki da ngay am xol boo xamante ne euh, xol xol bu laab la da am yéene si doomu aadama yi et puis nga jàpp ne ne yow boo amee am na koo xamante ne yaa ko tane tey boo wéree am na ko xamante ne mi ngi ci kaw lalu hôpital bi tey boo nekkee di dox si mbedd bi am na koo xamante ne caabi fecc na ko ginnaaw et je pense que ne c'est des yi nga xamante a bàyyi a dimbali c'est des personnes ne ne tey dañuy soxla loolu donc loolu moom mooy suñu suñu suñu suñu mission ñun jàpp na ne aussi mission bu ñu la sas la boo xamante ne dañ ko war a def parce que du man rek maa yëngu quand même si social je pense qu'il y a pas mal de personnes yi nga xamante ne ne bu ñu nekkulee ci wàllu culture wala si wàllu leneen sax ñu ngi yëngu si social. gis nañ tamit daaw 8 mars gis nañ mu tombé Sénégal kenn tal woon sax féete parce que événement yi fi am woon ren jii tamit 8 mars 2022 am na yenn événement yooyu tamit xawoon na ñu gis yenn artistes yoo xam ne sax ñoo ngi dégg koy teg si jigéen <laughs> bon yaa ma ko yaa ma ko informé ah. bon juste rek de façon du violence moom ak ah, jabar moom du artiste am problème ak moom je pense que ku di si nekk si ñun bépp doomu aadama souvent da nga am problème ak sa jabar. et je pense que am problème ne veut pas dire violence tey mun nga am problème ak sa jabar ngeen am benn malentendu ku nekk dem. mais bokku la koo xamante ne day jàpp jabaram di koy dóor à chaque fois par rapport ak si ay détails je pense que jigéen déjà. waruñu ko jël di koy dóor wala di koy teg loo xamante ne ànd na ko parce que euh, jigéen la comme on dit tey euh, yàlla may na ko loo xamante ne newul ci góor yàlla may na góor doole joo xamante ne tamit newul ci jigéen je pense que chaque fois war nañ mën dawal yërmande te xam ne ne aussi euh, bi ngay jël soxna dañ la ko jox ci farata ak donc bu yàlla defee ba nga xamante ne ne

dañuy gis ne ne à chaque fois su ko defee day yem ci man kese ak samay moyen bopp ak sama doole bopp e je pense que ba léegi ça continue ñoom ñoo bëggoon tey mu mel ni parce que ñoom ñoo bëggoon quand même euh, journée la boo xamante ne ñoom ñu partagé ko ak ñëpp te ñoom ñoo bëggoon ñëpp ñoom ñoo bëggoon ñu partagé ko ak tout le monde donc man si seen waay laa si seen waaw laay wax donc ku ma ci woo ne ma dama bëgg a ñëw dama naa la ah, tu es le bienvenu parce que ñoom seen choix loolu la bëgg nañu quand même nit ñi xam ne ne bu yàlla defoon tey ñu génn suba bu ñu jógee sur les réseaux sociaux ah ah lii suñu bés baa ngi nii franchement c'était très bien sànq rek maa ngi ci waxtaan ak koo xamante ne ne bële passé mi ngi fi woon 25 décembre passé mi ngi woon si détenu yi sànq maa ngi moom ma toog di waxtaan mu ne ma xoolal mbiru yàlla bee passé maa ngi fi woon tey maa ngi nii toog di seetaan yàlla rek a mën ma ne ko nag ñaan yàlla nag mu génne leen nu mu gën a gaawee parce que ku ci nekk ñaan nga yàlla dellu si sa famille gisanteeg sa waa kër dundaat benn ambiance ambiance boobu nag ñu doon dund seen waa kër moom la ñuy jéem ñun def fii ni def benn añ waxtaan ak ñoom ñu toog waxtaan kafagre essayer créer waat ambiance boobu même bu dee mënuñu ko sax mais mu fàttali leen tuuti si seen si seen si seen doon am yéen jabar du dem fu nekk yéen journaliste yi léegi daal. mais lan ma problème ak seen artistes yi lan ma sam problème ak seen artistes yi euh, lan ma sam problème ak seen yi non mais c'est-à-dire que man je me suis dit que ne 8 mars yéen koy wax rek mais man pour ñen chaque jour journée bu ñu sargal jigéen la man damaa jàpp ne 365 jours yëpp dañoo war a sargal jigéen parce que quand même euh, jigéen moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu def nu ñu mel jigéen la yàlla sargal jigéen la yàlla teral jigéen la yàlla euh, jigéen la yàlla teg foo xamante ne wax dëgg yàlla macha allah ndax budul woon si ñoom ah budul woon budul woon ñoom yaakaar naa ne kenn du judd si ñoom tey mënoon nga nekk jigéen yàlla jox la doom nga am noomeel ak moom mais da ngay xool yërmande bu ñuy nekk si ñun da ngay xool nga feebar nampal guddi nampal daw subaak ngoon ba ba nga màgg ba mënal sa bopp je pense que ñooñu du benn fan pour man 365 jours yëpp dañu war a màggal jigéen. mooy ban journaliste yi di door jigéen journaliste yi di door jigéen. waaw ah ca ñëwal. musique nag ko wax wax coow ndax soo gis moo mel noonu.

mais doko doko doko doko doko ko doo pour man et le plus important aujourd'hui moom mooy xam na ñun ñëpp yam fa yalla moy man ak yow ak journaliste bi ñuy de romb ñun ñëpp yam fa yalla amul kenn ku gën kenn lool li may gën metti parfois lool la le fait que les gens foog ne dañu gën ñenn ñi or que ñu fi kenn ñun ñëpp yam fa yalla amul kenn ko xamantene Euh, defal na doomu aadama dara ci dooleem yàllaa ko may doole boobu donc chaque fois nga gis lu la métti mais après da ngay bàyyi xam ne na yàlla loolu la la sas mission la c'était dans ton destin da ngay avancer ak moom ñu ngi noonu. jërëjëf si Diakhaw. allez jërë ngeen jëf. kuréel gi ñu ngi maa ngi leen di ziar doom yaay. tey di muy 8 mars journée mondiale de la femme la ma waroon fii sa teewaay tey. waa tey ku nekk xam na ni 8 mars la quoi te nag tey bisu jigéen ñi la. wala ndegam ñi nga xamanteni ño nek seen biir kër tay ñom lañu wara bëggal massama ñi nga xamanteni nak tay ji buñu sañon nek seen wetu njaboot xam nga nek seen wetu doom wala ñu nek seen wetu jëkkeer yalla dafa def nak ñom ñu am ndok ndok bo xamni jombul ben doom adam xam nga motax vraiment tay ñu ne bala ñu dem fen dañu ñew d'abord bëggal leen ba paré ba seen xel dal ñu xamni nat du wess amna ño xamni ñu ngi fi toñu ñu def ñu dara dañoo juum su dëgg am na ñoo xamante nag dañ leen a tooñ ba pare dugal leen fii moo tax vraiment ñun nag il faut ñëw bégal leen loolu moo waral tànk tey. gis ne euh, mois de mars bële passé Sénégal nekkoon si ay jafe-jafe yu metti si problème Adji Sarr ak maintenant euh, te Adji moom tamit mënuñu ko wax te waxu jigéen la gis ngeen dernier soto boo xam ne moom naan pour mu génn pour mu nalaw sax c'est tout un problème loolu yëpp muy sorte violence loolu dundee loolu. waaw mais xam nga loolu dafay dafay dafay contexte bu doy waar la ñu a wax nii a ah. mooy contexte Adji Sarr mais tey bisu jigéen ñi la. waaw moo tax bisu jigéen ñi la te nag xam nga man man jigéen ñi laa faral ah sérieusement parce que ñoom amuñu doole te fi mu nekk nii Sonko am na ay ay ay sa yoo xam ne ay góor lañ ñoo xamante ni buñ ko waxee ñëpp xeex wala ñu sànni xeer du dëgg parce que dañu far mais Adji Sarr am na ñu far ak moom te jigéen la du dëgg kon nag kaa bu doy waar la bu ñu war a traité ñu wax xale Sénégal la jeunesse ñu nekk ay nit. du dëgg xam ni tey jii kuñ ci defoon loolu sa sœur du la neex du dëgg voilà kon nag affaire bi ñi ñaan yàlla comme que mi ngi ci loxo yoon yàlla na ko yàlla yoon teel a leeral mais daal Adji Sarr jigéen la te bisu jigéen ñi la bu fekkee dañ ko tooñ nañ ko baalu wala ñu def ko ndàmpaay bu fekkee tooñ ñu ko tim loolu juge a xam me daal tey bés bi seen bés la ñoom ñu ngi koy massawu waaw seen a mooy li ma la wax rek moo tax ñu bàyyi lépp ñëw fii xam nga moo tax ñu bàyyi yëpp ñëw fii mais yëg-yëg bi may am rek mooy yëg-yëg koo xamante ni tey jii am na ku doon am na benn waykat bu doon wax naan nee na ko doon jaayi marché dinaa ko jënd am yaay moo neex ñàkk yaay dafa metti am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci biti mais seen yaay dafa mel ni dañu ñàkk yaay parce que seen yaay gisuñu ko donc vraiment ñu ngi leen di massawu wala di massawtim jambar yi nga xamanteni ñu ngi fi teud ta xamni jombul kenn tout deug vraiment yalla ni yalla gaaw genn ci Barcelona Mohamed